président Macky Sall est immunisé de manière absolue xam nga absolue waxuma total de absolue. pourquoi. parce que c'est la constitution qui le garantit qui lui garantit une immunité absolue. aux trahisons sauf aux trahisons. dans aucun du monde tu n'as pas vu une fois ñi ko bindoon seen loi muy France ñu mën la définir lan mooy haute trahison mooy benn tu comprends donc président de la République. il est immunisé pour tout ce qui rapproche nga président bu nekkee président rey nit parce que président la dara du ko ci fekk. patriote yi na dégg père Babacar Gueye père Babacar Gueye ñi ko xamul ancien ministre Abdoulaye Wade la xam nga Abdoulaye Wade nag moo ñu fi mus a moo ñu fi présenté façon ministre bu nekk paa bi nee na président Macky Sall est de manière absolue maanaam immunité la am quoi maanaam kenn mënul ci moom dara nee soo nekkee président la République même boo reyee nit sax dara du ci fekk. paa bi day caaxaan rek ci caaxaan képp loo nekk li mu wax dara du ci dëgg te ce qui li ma metti mooy dañuy togg ay journaliste Sénégal mais amuñu xam-xam wala boog da ngay wax li leen neex ñoom moo tax duñ la sax contredire arrêté la indi la ay preuve li ngay wax ni dara dara amu ci paa bi li mu wax dara du ci dëgg donc damay sàcc rek euh, vidéo bi léegi laaj jot ci benn benn benn patriote boo xam te ne daf ko doon démenté ci li mu wax nii te effectivement wax na dëgg maanaam Charles nga xamante ni moo nekkoon président Libéria président la woon def ay crime rey ñu ngi ko jàpp tëj ko cinquante ans de prison ma nga fa di croupir penam ba léegi nii. Hissène abre ci fonction am la defee li muy def ci guerre mi ngi ñu tëj kaso Sénégal ba Sénégal la faatoo donc Père Babacar Gueye loolu noonu rek war na war war na ko ni li mu wax dara du ci dëgg ay ay la du dëgg. donc ñii man dama yaakaar ne xamuñu ni politique bi da leen dépasse xamuñu politique bi nit ñi ci beneen level lañ nekk nekkuñ ci seen caaxaan yi ñu nekk ñoom c'est fini jeex na seen dernière émission yi nañ ko def ni rek dem président la def li muy def dañ ko jàpp condamné ko ba après lañ lijjanti bàyyi ko mais condamné nañ ko te liñ ko tëjee lépp condamné ko ñaata at la def prison mais ci exercice de ses fonctions la woon ci printemps arabe ana président Tunisie bi daw ana président Égypte bi bi bi ñu jàpp Hosni Moubarak la tuddoon xaw ma bi ñu jàpp mu ni dans aucun pays du monde président lu mu def yi man vraiment man damay man damay rus sax quoi cest à damay rus ci su ma gisee yenn kilifa yoo xamante ne ay ministre lañ fi woon jàppee seen bopp ay ni ñu jàppee homme d'état am fu ñu leen teg fekk seen bopp yi dara nekk ci la preuve li rek moo lay woon ni Sénégal Afrique bu demee ba tardé yenn tardé yi ba nekk pauvre nekk ci le vingt cinq pays les plus pauvres au genre nit yi ñooñu doon jiite genre nit yi ñoo yoon suñu réew yi ñii ñooñu doon jiite moo tax Sénégal lii ñu am nii fi ñu toll nii ci pauvreté ak ci dellu ginnaaw mënu woon a ñàkk.